asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dikk ci suñu bindum ñaareel ci téereb asxalul masalik ñi ngi war a dale ci ci borom téere bi waxe lahu kalaamun qudratun samun basar iraadatun xilmun xayaatun jaa al xabar bind boobu lim na fi juróom ñaari melo yoo xam ne daa bokk ci melo meloy mat yi nga xam ne daa sax ci jëmi suñu borom ji tabaraka wa ndax nit ñi jàngalee tawxid fii dañ ci topp al ashaira yi imaamul ashari ñoom dafa am ñaar fukki melo yoo xam ne dañ jàpp ne meloy mat la am seeni safaan ñu jàpp ne meloy manki la ñaar fukki melo yooyu nag jàngoon nañ ba ci njëkk mooy alwujudu nga gëm ne suñu boroom ko am la du ko ñuy wax rek te amut ñaareel ba doonoon alqadimu mooy tàmbalewut fenn ñetteel ba diw albaqa te moom waxoon ko waaris mooy amul fu may yem Eh, ñeenteel ba di qaimun bi nafs mooy wasuqinan eh, ku doylu la ci boppam aajo wut jëm ci kenn mbaa lenn lenn lu nekk ak kenn ku nekkay moo aajo wut jëm ci suñ borom waaye suñ borom moom aajo wut jëm ci lenn aajo wut jëm ci kenn melaw juróomeel mooy muqaalifun li xalqihi moo sàkk lenn lu ne ak kenn ku nekk waaye noonu la wuuteeg lenn lu nekk kenn ku nekk amul dara lum nuróon luñ ko yamanteel juróom-benneel ba mooy wa wahidun fi zaatihi wa fi sifatihi wa fi afaalihi suñ borom ku wéet la ci jëmmam ku wéet la ci ay melokaanam ku wéet la it ci ay jëfam moom rek sax mooy jëf lu dul moom jëfama jëmmam it kenn am ko ay melokaanam it moom rekk moo ko am loolu lañ jotoon a jàng mu ne lëxu ñal na ko kalaamun wax qudratun kàttan samoon dégg basarun gis iraadatun namel mooy coobare ilmun xam-xam xayaatun dund jaa dikk na alxabaru xibaar ba léegi nag juróom-ñaari melo yi moom la tudde sifaatul maani hmm. sifaatul maani def na ko way sifaatul daat euh, moom la borom bay di moom la borom téere bi tudd ci bay di daal ne suñu borom tabaaraka wa taala ko amee wax la wax ja yell ci moom waaw wax joo xam ne nag euh, lu ñu soreel la ay xaraf wala kàddu amu ca wala yàq wala ixraab wala yu ko nuru wala taqdim ak taxiir wala sukuutu euh, wala mboolem xeet yi ñuy wax ci wax yooyu wut na jëm suñ borom yi ni nga umpalee jëmmam daal noon nga umpalee it waxam. waaye jàppal na moom melokaan wax daa ko ci melo yi mat yi tax jëm mat moo tax suñ borom melokaanoo ko mm, ñaareel ba ba ca topp mooy ku amee kàttan la xudra mooy ku amee kàttan la nga xam ne lépp la man tëlewut dara waaw xanaa lu coobareem ajuwut ci amal ko waaye lépp loo xam ne coobareem aju na ci amal ko moom du ca lottu moom maanaam lottu ci dara tëlewut dara lépp la man mm. loolu mooy melaw xudra Euh, melaw dégg moom suñ borom ko amee dégg la ca dégg la dégg ba nga xam ne moo yàlla ci moom ko amee it gis la gis ba nga xam ne moo yàlla ci moom euh, iraadatun coobare mooy suñ borom ko amee coobare la lépp lu muy def ci coobareem la koy defee amul lenn loo xam ne moo koy forcer ci dara wala loo xam ne da ko mënta ñàkk def def ko wala dafa am leneen lu tax mu def ko waaye lu mu def lu ne ci ci coobareem la la ko defee ma mooy melaw xam-xam mooy suñ borom lépp la xam te lu ci nekk nam doone la ko xamee te da koo xamul njëkk muy am di ko xam bi mu amee di ko xamee gannaaw bu loola noppee am kon umpalewul dara dara lépp la xam te lu ci nekk nam doone la ko xamee hmm, ba ca topp mooy xayyan mooy dund da nga jàpp ne suñ borom ko amee la dund ba nga xam ne moo yàlla ca moom waaw yooyu nag juróom ñaari melo la mooy euh, qudratun kalaamun qudratun samun basar iraadatun ilmun xayaatun juróom-ñaari melo yi nag bu nekkee ci jëmm jëm jëm nekk dañ ko koy woowe niki euh, <coughs> niki iraadatun ba nga waxoon muy coobare bu ko jëmm ji melowoo dañ koy woowe muriid xayaatun dund ba nga waxoon bu ko jëmm ji melowoo dañ koy woowe xayyan aji dund qudratun melo la woo xam ne bu ko jëmm ji meloo dañ koy woowee qaadir kalaam bu ko jëmm ji meloo ñu di ko woowee mutakallim samoon bu ko jëmm melo meloo ñu di ko woowee samia basar bu ko jëmm ji meloo ñu ko woowee mubusir xilmun melo la woo xam ne bu ko jëmm ji meloo dañ koy woowee moo tax moom lay waxaat sax naan wa kawnuhu akuk nekkam xayyan di aji dund muridan tey aji nammeel tey jëfe ci kaw coobareem qaadiran te aji am kàttan wa mutakalliman te aji wax samian te aji dégg mubsiran tey aji gis wa aliman te aji xam kon juróom-ñaari melo yi nga wax léegi mooy bayit we euh, boo ko boole ku ko melo ñu woowee ko ko muy doon ñaari juróom-ñaar muy fukk ak ñeent boo ci boole nag juróom-benn melokaan yi nga njëkkoon wax mu doon ñaar fukk kon ñaar fukki melo yooyu lañ jàpp ne mooy meloy mat yi nga xam ne daa war ci jëm suñ borom ji tabaaraka la taala seeni safaan nag comme ni nga ko jàngi ci yeneen téere moom jotu koo lim waaye melo bu ci nekk rek xamoon nga safaan ndax jàngoon nga ko ci yeneeni téere seen safaan yooyu kon jàppal ne ñooy meloy manque yi nga xam ne daa jomb ci suñu borom tabaaraka wa taala yàlla màgg na xanit tamsiri walif ñu di ko misaal ak dara suñu borom nag moom amut lenn loo xam ne moom lees koy misaalal wala luñ koy nuróole wala yu mel noonu déedéet moo kawe lépp waaw weesu na it foo xam ne xel mën na faa takk karoot wa taba wa taba ak jikko ak taba moom la ñu firee jikko wa taaliili ak xilla mooy sabab wa taatiiti ak yoqal mooy wéetal ko ci ay meloom boroom nag ku jommante la ak li ñuy wax tabon mooy jikko dañuy wax ne sawara jikkoom mooy lakk kon bu amee lum lakk te dara doxut digganteem ak moom mu lakk ko daf koy lakk waaye nag bu fekkee ne am na lum lakk te am lu dox digganteem ak mu lakk du ko mën a lakk suñ maam Ibrahima bañ ko sànnee ca sawara wa gis na ne sawara am na lum lakk te boo ko dee xool ci saahir day ni dara doxul digganteem ak moom mu lakk ko waaye lakk ko kon daa am du dox digganteem ak moom hmm. kon doo wax ne suñ borom tabaaraka wa taala ba mu amee rek ci la mbindeef yi jaare amee te ci coobareem déedéet kon ñi wax loolu ñoom dañoo bëgg dàq coobare suñu borom tabaaraka wa taala hmm. nag moom ak kufru la ak yéefar la koo xam ne danga jàpp ne suñu borom am gi mu am rek moo tax mbindeef yi am te sañu ko woon a bañ waaye du ci coobareem loolu kéefar lañ koy jàppe day am ñu gëm loolu ay pas-pas la ñaareel bu mooy jëf ci kaw sabab waaw mën nga ne jaaro bi nga takk sa baaraam bi day baaraam bi moom bu yëngatoo rek jaaro bi day dal di yëngatu te dootu ko mën a te bañ kon baaraam bi yëngatu sabab la ci e, jaaro bi yëngatu loo wax ne te leneen nekk fa boole ñoom it dañuy wax ne suñ borom am gi am rek moo sabab mbindeef yi am du ci coobareem ba tey waaw kon euh, suñu borom am gi am ñoom ñooñu loolu la ñuy hmm. ñoom ñu di leen tuddee ahlul ahlul xiddati am na ko waxoon ne wa man yaqul bi tabai aw bil illati fa saaka kufrun xinda ahlil millati o ñaar ñoo moom ay yëfar lañ leen di jàppe wa taatiil mooy yokkal mooy euh, wéetal ko ci melo yi nga xam ne moom la saxalal boppam ci alquran wala yonent bi saxalal ko ko ci sunnaam dañuy jàpp ne wépp melo woo xam ne suñu borom saxalal na ko boppam ci alquran wala yonent bi saxalal ko ci hadis rek dañoo war a gëm ne suñu borom melo woo melokaan woowee te ba ñu jéem a xam nag nan la ko melak nan la ko melo woo dafa am ñoo xam ne dañuy di melokaan yooyu hmm. kon loolu mooy at tabu wa taaliili wa tahtiil wa lawni ak couleur wa taxmi ak cafka wa jismin ak jëmm ju ne leng aw aradin euh, wala xarad lawnu mooy couleur mooy suñ borom wa taala euh, kenn du ko wutal ab couleur boo xam ne danga naan nii la nii la mel nit nga ne daa am yàq wala daa ñuul wala dafa xong wala dafa bula déedéet loolu jomm na ci suñ borom tabaaraka wa taala loolu moom melokaanu ñi soos rek la te suñu borom mucc na ci ak sosam kon doo ko wutal couleur ah, caf it mel ni nga naan bëgg na ñam sàngam wala yu yu yu mel noonu borom moom wa huwa yut'imu wala yut'amu nga jàppe suñu borom ne jëmm ji lëng nga jàppe ko jëmm ji na lëng suñ borom moom du jëmm jëne lëng du loo xam ne day taq ci jëmu jëne lëng mooy aw arad gi nga xam ne moom la daaneele waaw suñ boroom soree nag jëmm jëne lëng waaye soree naag loo xam ne day taq ci jëmu jëne lëng mooy arad koo ne nag daa jàpp ne suñu borom tabaraka wa taala jëmm la june lenn waaye nag teewut mu gëm ne mu wuute naag yeneen jëmm yi nga xamoon loolu danañ ci ñëwaat ci kanam kookom du tax ñu jàppe ko yéefar dana ko tuddaat sax léegi ci kanam tuuti wama alallahi déet muy nekk muy war yàlla umurun ay mbir tuftaraat yooyu def na ko farataal yàlla nag moom dara waru ko kon loolu mooy li dagan ci yàlla mooy sàkk gi mu sàkku mbindeef yi loolu jaayis rek la dafa dagan waaye yàlla moom amul dara loo xam ne moo ko war xam ne dañ naan mënu ko ñàkk def hmm. wa kullu lépp loo xam ne jaa dikk na bi laf ci baat yoo himu bopp day defeloo aw wil xu ko taawil aw xul wala nga wax fii ci moom ne rabbi sama borom aalamu moo xam ca dëgg-dëgg bépp baat boo xam ne daa ñëw ci alquran mbaa mu ñëw ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te baat ba kat boo ko déggee mel ni luy saxalal suñ borom tabaaraka wa taala ab loxo wala mu koy saxalal nekk ca kaw wala lu mel ni istiwa yu ko nuru baat yooyu nga xam ne day ñëw ci alquran wala sunu yonent bi nee na ñaar moo ci mën a am benn nga taawil ko wala sax nga tafwid nga tafwid ko wane ne. yàlla moo xam loola ca dëgg-dëgg niki bu ne yadullahi fawqa aydihim loxol yàlla mu ngi ci kaw seen loxo ñaari déggin moo ci am benn nga jàpp ne ah yàlla de moom am na loxo comme ni mu ko waxale boppam waaye loxom boobee day doo ko nuróoleeg benn ci loxoy mbindeef yi nga xamoon moom yàlla rek moom moo xam loxom booba nu mu mel ci dëgg-dëgg wala nga wax ne yadu boobu sax dañ koy taawil ci kàttan ay qudratullahi fawqa qudratihim daa bëgg wax ne kàttanug yàlla mu ngi ci kaw seen kàttan ni ki noonu bam ne yaqaafuuna rabbahum min fawqihim min fawqihim danañ ragal seen borom ma ci seen kaw mu mel ni kon yàlla daa féete kaw comme ni nga ko waxee waaye danga koy euh, nattalee rek boo ne woon al amiru fawqal jaysi buur baa nga ca kaw xare ba xam nga nekkul ca kaw xare ba dëgg-dëgg waaye danga jubloo wax ne mooy seen kilifa moo leen féete kaw rek moo tax nga misaale ko Hmm. ba tey istiwa u alal xarsi mën nga ko taawile rek xëxër ci ak noteel waaw hmm. bi anna allaha taala malikun lil xarsi wa ma xawaahu hmm. eh, ah, kon ñaar yooyu lu am solo la boo dee jàng alquran mbaa ngay jàng xadis yonent bi sallallahu alayhi wa gis ci baat boo xam ne day nuru day day wax yàlla lenn loo xam ne da ko nuroog mbindeef ci yu mel noonu loxoog ndëggoog yu yi muy ñëwee ci alxuraan ak ci xadis yi nga seetlu ñaar yooyu benn nga taawil ko wala sax nga wax ne yàlla moo xam loola dëgg-dëgg wal xadara dogal ba xelam na nga xam xayrahu yëwam wa wa sarrahu ak ayam wa bi amrihi ca nameelam wa xulwihi ak aji neexam wa murrihi ak aji wexam maa lépp loo xam ne saa soob na saa soob na ko kaana mu nekk wa illaa ndéem soobu ko lam yakun du nekk isaa qadaa ndéem atte na amran mbir yaqul day wax ne ko kun nekkal yakun mu daal di nekk bokk na ci pas-pasu lislaam mooy nga gëm ne lépp loo xam ne xew na suñu borom mooy ki ko dogal moo xam day aw yiw moo xam day aw ay waaw ah, lépp lu yëngu rek suñ borom moo ko yëngal moo xam day lu neex moo xam day lu naqari nga gëm ne amul dara loo xam ne dana jeexital eh, mbindeef maanaam mënul jeexitul waaye jëpp jeexital ju am rek ci suñu borom tubaar ko temps la bàyyi ko waaw ah, moom xamut mënut sañut suñ borom nag mooy ki xam te man te sañ moo tax lu yëngu rek moom moo ko yëngal lépp lu ko soob day daal di am ay lépp loo xam ne soobu ko moom du nekk ba mukk mukk mukk li ñuy wax naan bu namee mbir sax day wax mbir ma ne ko nekkal loola daal di nekk dañ caa jublu rek lu mu bëgg mu nekk rek loola daal di nekk waaw ngir loo xam ne amul moom noo koy waxee naan ko amal lu amagut na noo jàkkaarloo moom ba naan ko amal waaye dañoo bëgg rek suñ borom moom lépp lu dëppook coobareem na muy amee day gaaw lool lool lool. Hmm. mu ne. Euh, wa yahfiru dana jégale zamba bakar ba si wa sirki ndare bokkaale limal ñeen ko liman ñeel koo xane yesaa'u dana ko soob wa tawbatu tuub fardun farata la fal zaman nang ko taqoo neen suñ borom nag tabaraka wa taala képp koo xam ne def nga bakkaar boo ko tuubee nag te tuub ga si àlla nga sàmmoon teg sarti tuub comme niñ ko nar a leerale ci kanantu di dañuy doogu ci ne suñ borom jéggal na ko jéggal na ko ko waaye nag bu fekkee ne jaam bi dafa def ay bàkkaar te tuubu ko ba faatuwaale ko boobaa dañ koy bàyyeek coobare suñ borom tabaaraka wa taala suñ borom mën naa dëppoog coobareem mu jéggal ko mën na koo topp it mbugal ko ba mu des bokkaale bokkaale yàlla nag moom mooy wutal yàlla ndend booleeg yàlla lenn loolu moom koo def lay bax rek moy nga tuub ko tuubu sel te rafetalaat gannaaw ba waye ko faatuwaale te tuubo ko mom sun borom dula ko jéggal mo tax ne yalla dana jéggale bàkkaar ñal jaamam bu ko soop ba dess ko xane da ko wutal lenn moy da ko bolé lenn mbaa kenn mu ne tuub nak farata la ko taxo bu baaxa baaxa baax ndax kat euh ëpp ci jaam ñi mom dañu faral di di joom ak di mooy yàlla léeg-léeg ñu néew ci jàmm ñi daal mooy ñoo xam ne yàlla musal na leen ci jóom ak jàdd ak yu ko nuru kon ginnaaw ñi ëpp ci jàmm ñi dañu faral di jàdd di def ay njuumte kon war na ñuy bëril lu ñuy tuub di tuub ci saa yu ne jamono yi nekk ak waxtu yu nekk moo tax mu ne tuub farata la joo xam ne na ko taxoo euh, wa sartuha sarti tuub nag mu ne wa sartuha sarti tuub ay yoqali am mooy mu buddi ko min zambi yi ca bàkkaaram ba min fawri yi ci ak gaawam wala azma ak dogu allah yarjaa mu bañ a dellu ci bàkkaar ba tuub moom bu fekkee ne li ngay tuub sa digganteeg yàlla rek la àqi benn doomu aadama ajuwu ci ñetti sart la am sart ba ci njëkk mooy nee na nga bàyyi bàkkaar ba ca saasee saasa waaye doo sëgg ci bàkkaar continuer ci ba noppi naan damay tuub wala damay yàggale li mu ngoone mu tuub déedéet ginnaaw da ngay tuub kay da bàyyi bàkkaar ba bàyyi lépp luy nuroog xeetu bàkkaar ca saasee saase noppi nga dogu ci lu mu yàgg-yàgg doo dellooti ci bàkkaar ba doo dellu ci benn bàkkaar réccu sax moo jiitu da ngay réccu ngay def bàkkaar bi ba noppi bàyyi ko ca saase saasa ba noppi yéene nag li def ci sa dund moom doo dellooti ci bàkkaar ba mukk mukk mukk waaye bu fekkee ne nag moom tuub na réccu na bàyyi na bàkkaar ba waaye daal nee na dana ko bàyyi jamono yi waaye nar na caa delloo kon dañu jàpp ne tuubandi na rek waaye tuub ga dëgg-dëgg moom du luñ mën a jàppee ak tuub warada zulmin ak delloo tooñaange moom ki doon ji aji jàppandi war na dama ak réccu gee mu wax bokk na ci sarti tuub ñu doole ci beneen bu ko ñeenteel bu fekkee ne nag la ngay tuub sa diggante ak mbindeef yi da caa ajuwaale lu mel ni yow tooñ nga yàlla waaye tooñaale nga kenn ci gaa yi tooñaale nga benn bindéef lu mel ni jël nga alalam wala wax nga ci ab deram loo xam ne lu jaaduwut la kon tuub ga nga tuub sa diggante yàlla rek du doy waaye faw nga jéggaluwaale mbindeef moomee nga nga nga nga tooñ jéggalu ko nag du man a am rek ci jéggal ma rek waaye faw da ngay delloo tooñaange tooñaange nag ñu ko sëñ bi jàngale woon ci Jawharu Nafis benn mu doon alal mbaa mu doon ab der bu fekkene alal la nga delloo ko borom alal ja bu fekkene borom alal jaagi fi di dund nga dem ne ko ah, kat maa jëloon sa alal lu tol nangam mi ngi nii nag dama bëgg nga jéggal ma nag diir bi ma ko tee ko defee mu daal lay jéggal wala sax borom alal ja faatu ne waaye ak njabootam ma nga fi ña koy dond wala ay waajuram nga jël lu toll ni la nga ko amee loon ci alal dem ba ci ay waajuram wala ak njabootam nga ne leen yéen kat seen baay wala seen doom dama koo amee loon nangam ci xaalis dama koo jëlaloon nangam ci xaalis te xam naa ne faatu na te yéen yéen a fi def ginnaawam yéen a ko dond kon nag alal jaa ngi daal leen di jéggalu wala benn moom faatu na xamoo kenn ci ay waajuram xamoo kenn ci ak njabootam kenn ku ko war a dond daal moom xamootoo ko ci kaw suuf waaw benn ñoom dañoo dee ba jeex wala yow def nga sax sa kéemtulaay kàttan waaye mënoo fexe ba xam ci kenn kenn kenn kenn. a ah, sëñ bi nee na nag boobaa danga koy saraxe moom te yéene ko yool ba hmm, loolu la waxoon ci alal bu dee nag tooñaange day ab der moom yàq ab der jëw wala xaste wala yu niroo yooyu bu dee dund rek nga dem ne ko ah ma kat maa la waxoon nangam ak nangam maa koy jéggal ci kaw bu fekkee ne loola luñ mën a wax la bu fekkee ne la nga ko defoon dafa ñàng lool fekk nga ne ko ah jéggal ma kat man kat jote woon nag sa jote woon naak sa soxna xam nga loolu neexut a wax nit jàkkaarloo nag naa ko jotoon naag sa soxna loolu boo moytuwul mën naa jur wala sax nga waxoon ko wax ju ju ñaaw joo xam ne wóor na leen ne boo jàkkaarloo moom maa la waxoon lii wax ja mën na koo méttee métti ba mën naa jóg sax ngeen jàmmarloo benn yoon wala muy julli sax di xalaat loola boobaa nee ñu doone ko maa waxoon nangam waaye da naan ko jéggal ma rek jéggal ma ba noppi fas loola nag la nga ko waxoon ci sa ci sa xel moo tax it jullit bi war naa wattandiku bu baax a baax nag di teg yenn yi ci deru mbokkum jullitam ndax day waral bu ko dee tuub tugg day metti rek wobi tinaabil ismi ci teet bàkkaar yu mag yi nag yum xaa la defi farale la defi fare àlla yi ndaw yi loolu mooy in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudxilkum madxalan karima suñ borom tabaraka wa taala nee na bu ngeen bàyyee bàkkaar yu mag yi E lilendi gar ci ay bakar yu ndaw dalen koy jegal duma len ko topé kon ku bayyi bakar yu mag yi do ci jegi ben ben lo joom ba def ko ci ay bakar yu ndaw yalla jegal lako yalla faral lako waman yamut kufatu walam yatub tatubu an wizrihi walif ay bakaram faw widda na nga fetale ila llahi jëm ci yalla jamiha amrihi mbolem biral niñ ko waxon ci ginaaw ab julit mom bu fekkene def na bakar tuub digganteem ak boroomam te sellal tuub ga te sàmmonteeg sart tuub ya comme niñ ko waxee woon ah ñu doog ci ne yàlla jégal na ko ko ndax yàlla moo ne ko tuub mu jégal la waaye nag bu fekkee ne moom jullit bi def na ay bàkkaar yu mag ba noppi sàggan tuubu ko tuubu ko ba faatu ah duñu wax ne moom de def na bàkkaar yu mag faaw yàlla da koy mbugal déedéet duñu wax ne it faaw yàlla da koy jégal déedéet kon nu ñuy def mooy mbiram dañ koy bàyyee yàlla rek. bu defee yàlla moom mooy xool coobareem rek bu dëppoo ak coobareem mu jéggal ko bu dëppoo ak coobareem it mu topp ko bàkkaar yooyu mbugal ko waaw laa yoqtaamu deefu dogu bil ataabi ci mbugal ma lil musi yi ñeel aji ñaawal déedéet duñ dogu daal ci ne ku def bàkkaar moom faw rek ñu mbugal ko hmm. ñun ahlu sunna wal jamaa bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy wax naan bàkkaar moom amul bu ndaw amul bu mag te it ku def bàkkaar rek soppi mu doon ab yéefar wala ñu naan ku def bàkkaar bu mag yow nekkatoo jullit nekkatoo yéefar waaye yaa ngi ci diggante bi pas-pas yu yàqu yooya ñu koy wax eh, ahlu bidaa ñooñu koy wax ñun ahlu sunna wal jamaa bokkuñ ci loolu duñu wax loolu déedéet waaw dañuy jàpp ne moom bàkkaar bàkkaar la rek ku def bàkkaar moom bu ko tuubee ñu jàpp ne yàlla jégal na ko bu ko tuubul nag ba faatu ñu bàyyi ko ci coobare yàlla li fekk bàkkaar bi yëgut ci bo euh, bokkaale hmm. loolu tax sax mu tekki wal kufru weddi ga yàlla wa tahlidu ak belal ga ca sawara yim na def na ko tere an holif ko loolu da am pas-pas yàq yi borom pas-pas yàq ñoko wax mu bëgg la wax na ni ñun ahlu sunna jappuñ loolu wa waaw dogo mu ko ci ne faw yàlla mbugal ko waye duñ ko def ab yéefar duñ wax ni kuy dem sawara la sax déedéet lepp dañ koy delo ci coobare yalla rek bakkar munta def nit ki ab yéefar te bu fekkee ne koo xam ne gëmoon na yàlla sax moom bu defee ay bàkkaar lu mu yàgg-yàgg lu bàkkaar yi bari bëri buñ ko dugalee sawar yi dañ koy fóot fa bàkkaar set rek ko defee ñu génne ko moom moom faw mu dugg àjjana ginnaaw gëmoon na yàlla moom lu gëm ko tuuti tuuti dañuy jàpp ne rek eh, mu dugg aljana kon xam naa ñu taxawal foofu incha allahu taala ci suñ bindu ñaareel bi ci téere bii di asalul masalik di jéglu baax nag ci guddaayu dars bi ak ñàkk leer gi di leen dogal ngant lu ciy jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng noo ngi koy jégalu bu baax a baax.